ci yéen alquran na ngeen déglu te xerewlu ngir jariñu yàlla ñu ko yombalal yaa cheikhana الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبعه ووالاه مبوك آه، jullit ñi ام سنتي الله bu ci daje fii ngir teral lenn ci sunu njaboot yoo xam ne yàlla dimbali na leen ba ñu saytu alquran ñu daje fii pour teral leen ñu ngi ndokkal xale yi di ndokkal seeni waajur waaye di ndokkeel itam seeni sëriñ jaarale ndokkeel boobu ci loxo ustaaz al ustaaz Omar Sall mu jotale ko mbooleem ñi ŋànk daara ji tawfiix la bu rëy ci yàlla mu may ab waajur njaboot bu saytu alquran waaye tawfiix bu rëy la ci ab sëriñ mu tette ab dongo jàppale ko ba mu mokkal alquran euh, comme nag jataay bi jataayu alquran la xol yi tooy na ci déglu ko ak xerewlu ko dañu doon bëgg a taxaw tuuti ak jeexitali alquran yi mu am ci ki koy jàng waaye am ko itam ci société bi nga xam ne ña nga ko fay jàng loolu liñ ci jublu mooy gën a xamal jullit ñëpp njariñ alxuraan ci àdduna ak àllaxira waaye ñu gën a xamal waajur yi ne jamono yi ñu jëlee seen doom yóbbu ko ci daara ja muy jàng ñuy dar dari di fay jamono ji ñu defee loolu sànniwuñu seen doom bal dañ koo jël teg ko ci yoon yu gën ci yoon wi dañuy waxtaanee jëriñu alxuraan ci société bi ak individu bi pour soññee ci sëriñ daara yi ñu xam ñooy ñan ak fan laleen yàlla teg ak lan mooy seen njëriñ bi ñu amee ci société bi ñuy dund lu ci nekk nag mbokk jurit ñi ci ay simili yu néew rek lañ koy eh, lañ ci taxaw ngir bàyyee xel sunu topp bi sunu naataangoo bi sunu mag bi di alustaz Mor Kébé hafidahullah mbokk jurit ni alquran téere la di gën ci téere yi yàlla wàccee ko ci ci gën ci yeneen yi wàccee ko ci weer wi gën ci weer yi waaye mu wàcce ci béréb bi gën ci béréb yi wàcc itam ci làng bi gën ci làng bi loolu la alxaafis ibnu kasir wax rahimahullah bi muy firi inna anzalnaahu quraanan arabiyan ci taaqiluun mune mbollem xeti ngëneel dafa daje ci alcorane yàlla xamal ñu ne reyna 10 10 diisaay boo xam bu doon ci ay doj lañ ko wacce kon doj yooyu dana fecc mune law anzalna hada alqurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min khashyati yàlla subhaanahu wa xamal ñu ne bu doon am na téere boo xam ne dooleem àgg na ci suñ ko jàngee ci suuf suuf soosu daggatoo buñ ko tiimee jàng ab néew néew boobu jóg dégg la ñuy wax nee na bu doon am na benn téere ci téere yàlla yi yàlla wàccee bu mën loolu nee na kon alquran lay doon من ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى من بل لله الأمر جميعا الحافظ ابن كثير وحنا يقول الله تعالى مادها للقرآن لو أن لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك تيري بو ملني تيري بوبو نك كيكوي جانغ جمكو ديكو جيفي فاو تيري بابو جيخي تلتي lolo ta alquran am jeexital ci ki koy jang ci labal xolam leral xelam jubanti ay kaddom alquran day rafetal jikko yi ki koy jang di defar comportement di rafetal ay jëflanteem alquran day eh, teyal di rafetal di neexal dundi ki koy jang su fekke ne mu ngi jang alquran diko jëf alquran nak bo gisee jeexital yoyu mu koy def ci ki koy jang da am ay melokan yu bari yu yalla melal alquran yo xamne ñoy tax muy jeexital ci ki koy jang diko jema jëf melo yooyu bi ci jëkk mooy yàlla defa ne alxuraan bi leer la mu ne xad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin leer nag gis nga li yàlla teg ci aaya yooyu ci aaya boobu mooy yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subula salaam wa yuxrijuhum min alzulumaati ila nnuur bi izni wa yahdihim ila siraatin mustaqim leer bi yàlla def ci alquran da koo def ci arf yi def ko ci baat yi ci anam boo xam ne ki koy jàng leer googu dafay leeral xolam xolu jullit bi nag bu leeree dina xam dëgg ak caaxaan dana ko génne ci griir dana ko muccal ci seytaane alquran day jeexital ci ki koy jàng ndax yàlla da koo melal ci ne moom hidaaya la mu ne inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam cheikh abdourahman saadi nee na alquran yahdi lati hiya aqwam day jubal ni teg ko ca la gën ci ay xeetu pas-pas may ko la gën ci ay xeetu jikko melal ko na gën ci ay xeetu comportement melal ko na ca gën ci ay xeetu jëflante xiir ko itam muy wax ca la gën ci ay xeetu kàddu maanaam alxuraan day jël ka koy jàng di ko jéem a jëfe ci wàll yëpp mu mu jox ko ca la gën loolu moo tax alxuraan di jeexital ci koy jàng alxuraan day jeexital ci koy jàng ndax yàlla da koo melal ci ne moom téere la bu barkeel barke nag li ko yàllay melal mooy loo xam ne boor boo ko wëlbatee njariñu kesel luy lor nekk yàlla subhanahu wa taala wax ne wa hada kitaabun anzalnaahu mubaarak téere bii maa leen ko wàcceel muy téere bu barkeel dama bëgg nga xam ne lépp lu yàlla melal alquran rek daa bëgg jaam ñi xam ne ku bëgg loolu da koy mën ci alquran bu nee alquran leer la soo bëggee leeru àdduna ak àllaaxira alquran a su melee alquran nag njub soo bëggee njub rek àdduna ak àllaaxira ci gën a su yàlla ne téere bii téere bu barkeel la barke alquran du caageen ne dafa yem ci alquran kot day roogalaat jëm ci ñi ko gëm di roogalaat jëm ci ñi ko bëgg di roogalaat jëm ci ñi koy jàng roogalaat jëm ci ñi koy jàngale boo gisee ëllëg ñuy woo waajuri ki jàngoon alquran ci diggu péncam yàlla solal ko yërey buur solal ko mbaxanay buur te moom mooy rekk ki jëloon doomam joxe ko mu jàngi parce que barke alquran moo roogalaat ba ëllëg yowmal xiyaam ñu ciy teral waajuri ki ko doon jàng looloo tax eh, al imaam ibnu ashur wax ne yàlla daa bëgg ñu xam ne dafa def barke ci alquran ci anam boo xam ne ki koy jàng di ko jëfe yàlla day barke léppam léppam day barkeel waxtoom ba ci waxtu wu néew mu mën caa def lu bari dund bu gàtt mu réaliser lu bari yàlla barkeel alalam ba ay dërëm dërëmaatam yooyu mu yor dangay dem ba boo amee soxla ñëw di ko leb ndax sa jaahilu agniyaa min at-ta'affuf noonee la yàllay barkeele ay njabootam barke lépp barke boobu nag nekk ci alquran moo tax muy jeexital fortement ci ki nga xam ne da koy jàng alquran day jeexital ci ki koy jàng ndax yàlla dafa ne moom alquran saafara la shifa la mu ne yaa ayuha nnaasu qad jaatkum mawizatun min rabbikum wa shifaun lima fi sudur mu soga ne nag wa hudan wa rahmatun lil muminin yàlla ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin yàlla ne qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa alqur'an a ngoog nekk saafara ci seeni jàngoro al imaamu Shawkaani ba ci al imaamul Qurtubi rahimahumullahu jamian dañoo wax ne saafara bi yàlla melal alquran ne saafara la shifa am la min al amrad al maanawiya wa hiya amradu al qulub wal amradu al hissiya allati hiya alaamu wal asqaam al badaniya mu melal bi yàlla melal alquran ne saafara la moom saafara la ci bépp jàngoro ci xol ci bokkaale yàlla ak coxor ak rëy ak ay jikkoy ñaaw alquran da koy genné ci xolu kiko gëm di jang ci lu mu yëg ak lu mu yëgul ba day mujjé laab gëna rafet ñëpp xol mu ne noonu nak lay fekké jangoro yaram yi di safara ci jang bu ko borom di jang kese yéene ci safara ken xamul tan yu reuy yu bari yu alquran yàgg def ci febaru yaram yi benn borom bu mag mu ngi wax ne bu yagul dara dañu trouvé ci mom ab febar bo xamne dañ ko ne bu la fi baye ba bayyi la fi ñetti weer ñun nak docteur yi dañ la koy wax parce que dañu gis ne jakk nga borom xam-xam nga attan nga liñ lay wax ñu bëgg nga wajal sa bop def say neena mu gëm li leen seen xam-xam jox waaye mu gëm it kàttanu yàlla ak dooleem neena na muy mocce boppam fatiha bi yonent bi wax ne shifa la yonent bi moo wax ne fatiha mii wa maa yudrika annahu shifa neena na yoqantuma bàyyeeku wuma gëm naa la leen seen xam-xam wax waaye gëm naa ne yàlla dara tëwu ko gëm naa ne itam yonent bi waayam ci quranil anil hawa nee na ma jël faatiha di ko mocce sama bopp juróom-ñaari yoon nee na nag mën naa koo def benn yoon ci bis bi wala ñaari yoon wala ñetti yoon saa yu sama xel demee ci ñaan daal ma jàng faatiha juróom-ñaari yoon yooyu yéene ci li may yëg yàlla saafaraal ma nee na dama toog ba benn diir ma demaat ñu ne ma ñun dey li ñu jaaxal mooy lañ la doon lañu gisoon ci yow nekkatul ci yow léegi wax ñu foo fajoo mu ne leen xanaa ci alquraanu yàlla bi gis nga melal bi yàlla melal alxuraan ne moom saafara la xam nga lu des jaam bi gëm li yàlla wax gëm alxuraan te di ko jëfe moo xam saar wu mu ci jàng pour yàlla saafara ko yàlla da koy saafara alxuraan jëpp la yàlla melal loolu euh, alxuraan day jeexital ci ki koy jàng ndax yàlla subhaanahu wa def ko melal ci ne day sellal ak dund di ko teeyal di ko yombal gis nga bi yàlla ne wa man an zikri fa inna lahu maishatan danka alxuraan bi ku ko woon gannaaw manoo fexe ba sa dund tem-temi dund gu xejam rek dugal ci ay avion wàcc fanaanal ci ay hôtel yu cinq étoiles solal lu la neex waaye di nga yëg ci sa xol ay ragal ak ay tiit ak xat goo xam ne kenn mënu koo nettali kenn mënu koo melal ku dul yow mi ko yëg ak yàlla borom bi mu ne ak koo mën a doon nag dëddu alxuraan doy na coonoy àdduna ndax coono ba coono jeex mooy coonoy xol ak coonoy xalaat ak coonoy bopp yu tëju yoo xam ne doo xam lu ko waral loolu la yàllay nattoo ki woon alquran gannaaw aaya bi nag daa wone ne kon ki woon alquran gannaaw noonu la ko yàllay nattoo mooy maishatan danka kon ku jox bopp alquran yàlla dina la jox dundu di gën ci dund yi alquran day yëkkati ki koy jàng di ko kawel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne inna allaha yarfau bi hadha al kitaabi aqwaman wa yadau biha bihi axarin nee na bi yàlla dina ci yëkkati ay nit ñu kenn xamul waaye dana fekk ay nit ñuñ ko xame woon ñu sàggane ko xamuñu ne alxuraan a taxoon ñu yëkkatiku ñu sàggane alxuraan nee na ñu mujj kenn dootu leen dégg mbokk jullit ñi jeexital yii alxuraan di def ci nit lu ko nit gën a gëm gën koo jëfe jeexital yooyu gën a feeñ gën a gaaw a léegi nag mu de société bu ñuy jànge alquran ak société bu jàngkatu alquran bari ak société boo xam ne keppaari alquran cari alquran def faa dem fu nekk société boobu mbokk julit ñi société dalewul neexewul jubbantikoowul amewul jàmm ci lu gën gën alxuraan yi tasaaroo fa ba foo tourné gis leen ñu ame ay daara ame ay jàkka bu fajaree alxuraan bi jolli ca jàkka ya bala jullee jot alxuraan jolli ca daara ya bu jëkk danga daan tollu fële seen takk-takku daaray alxuraan ya ca kaw ñooñu loo yaakaar la yàlla def ak ñoom lu dul li wax ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard la yàllay jëflanteeg ñoom mooy walaw anna ahlal kitaabi wala aqaamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim loolu kat ci injil ak tawraat la ko yàlla wax kon fa ma baaluka bil qur'an yàlla nee na waa tawraat ak waa linjiil suñu jëfe woon linjiil melowoo ko tasaare ko jàngale ko jëfe ko kon la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Taurat, ak injil Al mo leen ëpp doole kon buñ ko jëfé won ciow li jeex li ma bëgg wax moy société yi lu fa daara yi gëna bari lu fa jang alxuraan yaatu lu fa nitu alxuraan yi gëna Nyonya, bari ñoña ci lu nit ñi yëk ak lu nit ñi yëgul jamm ju société bobu am xewal gu société bobu am ci ñooñu la ko yàlla jaarale mo xam nak kanamal nañ leen wala gannaawal nañ leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innal bayta tasiu ala ahlihi wa yaksuru xayruhu wa yaqillu charruhu wa tahduruhu almalaika wa tahjuruhu alchayatin an yuqraa fihi alquran mu ne kër danay bari jàmm lool yaatu lool xéewal bari fa lool safaan néew fa lool fu malaaka yërmande naawe wàcc ci àdduna bi jubal ci kër googu mu ne seytaane yi nag fu seytaane naawe ba jib kër googu daw mu ne bu fekkee ne këru julit la gu ñuy jàng alquran xam nga loolu yonent bi ci kër la ko wax mm-hmm. noonu la valable ci ab koñ noonu la valable ci ab dëkk noonu la valable tam ci am réew nañu joxaat alquran sunu bopp nañ ko jubluwaat nañ ci téyewaat nañ ko bëgg nañ ko défendre gis nga lu fi aw jiwoom jeex mu jeex fi xale yi nag ñooy jiwu alquran mbokk bokk na ci lu nit mënta layal ci bokkanamu boroomam yàlla jox la benn ñaar ñett juróom ci njaboot ba ngay àgg fukk amul kenn koo xam ne def nga ko azaka mu jàngi alquran dara gënul ñaaw këru julit goo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon alquran bu fa jibee julli la amul kenn ku fa mën a jàng ubbi ab jukki jàng ko fa ah maa ngi daanele ci taaliq ci qissa bii mbokk mi wax léegi mooy ay oustaz Oumar Sall ab jàngalekatu alquran bu ñu fekk ci daaram dóor ko bal këlëb mu génn àdduna xam nga loolu oustaz Mor yu koy indi cim réew mooy insécurité lii ñu dàng ak jublu ci ngangloo yi ñuy dégg ci sunuy homme politique ci sunuy politicien kii ngank ñii ngank jaar fii ñii ngank jaar fii ñu ngangloo rek taxaw mbokk julit ñi loolu nañ ci wax nañ ci ñaan nañ ci laayante biir nañ ci waxante dëgg ndax cooli cooli ñu na loola ñu daan wax ci wolof naar yi bu ñu demee ba ca àll ba ñuy xuloo ak a xeex na gilleem yi fori te xam ne bu naar yi juboo ñooy sëf sëf yi bu naar yi juboowul ñooy sëf sëf yi ñun askan wi ñu ni neen la nañu jóg ñu mën a wax ñu wax ñu mën artu ñu artu fa dëgg bi nekk ñu wax ko laayante biir suñu réew jàmm mën fee am sino réew bu demee ba jaxasoo pëcc ko lu ne mën na fa am loolu yonent bi waxoon ne dañuy àgg ci laa yadri l qaatilu fii ma yaqtul wala yadri l maqtuulu fii qutil nit day reey nit te du xam lu tax mu reey ko ak lu ko koku def tañu ne tañu jamu dé it du xam lu ko reey waawan ki ma reey la lolou yëpp likoy waral moy réew mo xamné ne amna fa jaxaso amna fa hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain